votre chaîne Ngeko TV. Ngeko TV, c'est une chaîne télémédia Bilen Genetjege. Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngeko TV, Indil Nalen Lubes. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngeko TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngeko TV. régime. Bismillahirrahmanirrahim. asalaamu aleykum mbokki campement Nguékhokh ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam waxtaan bi tey dañ ko jagleel waa Nguékhokh comme nu ngeen ko xamee tey la campagne bi di tàmbali tey ci ngoon dinañ ubbee sunu campagne fee ci Bambey waaye dañu ne woon balaa ñuy dem fenn nañu waxtaan ak waa Nguékhokh

dinaan yàlla mu taxawu leen ndax lii ñuy def ci dëkk bi am na solo lool ñu ngi tax ñu mun waxtaan ak yéen même bu dee ku nekk amoon nañ yéene fekk la sa biir kër wax ak yow tey nag waxtaan bi waxtaan bu mel nii mus nañ ko sékk ak presse bi fële ci centre ba mooy waxtaan bu ouvert la dañuy wax sunu xalaat situation bi waaye ñu jox journaliste yi question yi nga xamante ne xamaguma sax yan question la ñuy posé waaye dañ leen jox liberté ñu poser question bu leen neex ñu laajte lu leen neex mu mel ni dañu dem grand place xox yëpp toog fa ñuy laaj question mu mel ni dañu dem fépp fu ñuy werantee ñuy laaj question ñu leeral ndax suñ sañoon noonu lañ koy doxalee ba benn question benn lëndëm lëndëm du mën a nekk su bopp nit ñi alhamdulilah bañ ko mënee def ak presse bi di ñaan yàlla sunu borom ñëpp jot si gannaaw bu ñu waxee loolu dañu waxtaan ak waa Ngexoox di leen yëgal ne ñu ngi dem si ay élection falum député élection yooyu nag élection yu am solo la si gox yëpp ndax député ñëpp xam nañu lan mooy Nous fële ci ndayu réew mi foofu la ñuy ñu war doxal réew mi nan lañ doxal ñu fal président de la république bu bees ñun ñëpp ñu participer ci nous fal xaar nous suñu bu baax bu mu fal premier ministre am fal gouvernement wam ñoom ñëpp seen yéene mooy développer Sénégal ñu leen ñaanal yàlla suñu borom ba yéene boobu ñu am yàlla na sotti waaye yéene boobu mënuñu ko defal seen bopp balaa ñu koy def at gu jot dañuy dem assemblée nationale ne ko nattal leen ñu budget bu ñuy doxalee réew mi waaye xam ngeen ne budget Sénégal doyul moo tax ngeen di dégg Sénégal su ne lii laa am ci alal bëgg ko def fii waaye lii manqué na ma day dem lebi ko donc dëkk buy leb lu nga am doyul moo tax ngay leb ñàkk doy boobu moo tax. même sen yéene du d'affaires au Sénégal nous avons au Sénégal fépp dinañ defar fi commencé fi bay Nous donc solos assemblée nationale nak moy fexé am ay doom yi nga xamante dinañ nous fu ñuy budget Sénégal dinañ fekkee fu ñuy ñu ñu pour ñu doxal campement ñu japp ne dëkk bii ñu dëkk bëgg ko lool waratul am assemblée bu amul député bu ndaxte foofu lañ toll ci dayo loolu nag pour mu am doomu dëkk bi ñoo koy xeex ndaxte Gàmma amoon na mu ngi njëkk am député ci Salif Fall ñu toogaat ay at lu ëpp fukki at ak lu teg député ab songa Diouf amaat député Malick Gueye fan yi weesu deux ans yi mujj amaatuñ député ñu demaat yeneen élection ñu ne ah campement nag warul toog du am député campement warul toog du am député loolu mu nekk yàqin fi ñun ndaxte am na commune yoo xamante ne chaque assemblée nationale nañu fexe ba am député place yi député yi nag doyul ndaxte Sénégal mu ngi am 557 communes te députés yi ñu ngi toll ci 165 loolu lu muy wund mooy xaaju communes yi sax du ñu am député donc dëkk bu nekk sa taxawaay sa farlu sa bëgg sa dëkk bëgg sa doomu dëkk moo tax ngay xeex ba à chaque fois nga am ñu la représenté assemblée nationale. yàlla daf élection yii ñu jëm benn liste dong muy liste coalition gox yu bees yàlla daf ñu jiite ko tête de liste nationale liste boobu rek moo mën may ay député fii si y ndaxte yeneen liste yépp ñun ci dugal mënuñu député te ku leen votel da ngay fal yeneen député yu nekkul ay doomi Ngeexoox loolu nag ñu bëggoon si waxtaan ñun nous ndaxte ñun ñoo a bu affaire yi commencé daf nañ fi vidéo woo l'ensemble des responsables ñom ñep ku nekk ñu jaar sa tur waye ñom ñep ku nekk ñu wola ñen ñu seet leen ba seen kër talal leen loxo wax leen jàppale leen ngeexoox ngeen ngeexoox am député jàppale bobu nekkul Ahmed Diallo la ñuy jàppale. parce que si soit ak ñu xam nu ñuy doxalé 2017 pap Songa Diouf bu mu bëggé nekk député ñu leer ñu mom moo mun nekk député ngeexoox dama jog taxaw jàppale ko.

donc ñun ne rek moo ñu ñor saa yi su doomu ngeexoox Nous su doomu dañ nekk taxaw si ba mu mot sëkk fu mu toll nii nag si position boobu la yàlla daf ñu nekk bëgg représenté ngeexoox nekk doomu avons bi nga xamante ne waa ngeexoox yépp suñ jógee taxaw nous taxawal ñu dinañ dem assemblée nationale te yàlla xam ni assemblée nationale dinañ xam am nañ député waa Sénégal tamit dinañ xam député am na fi ndaxte xam nañu député lu muy laajte xam nañ lan mooy mbiru député xam nañ ban taxawaay lay am ndax taxawaay boobu lu su bëri am nañ ko déjà balaa ñuy nekk député donc di tàllal suñu loxo waa Ngexoox ak su waay mën a ne ak fu waay mën a fa ak ku ñu waxal ak ku ñu waxalagum ak ku ñu seeti ak ku ñu seetalagum ñoom ñëpp seppi kenn ñu ngi leen di tàllal loxo

gën yaatu donc am yaakar lol lool ak lu munti am suñu liste mom dina am ay député loolu nak suñu sañoon waa ce kenn du leen ëppale ci cotisation kenn du ci vote doomu dëkk ay représentants yu ñuy Matam muy Kër Massar muy fop ci Sénégal ñu ñu am résultat yu baax ci élection yi weesu fas yéene ñu jàppale fas yéene ñu taxawu ñooñu aussi bëgg nañ waa Ngexoox bañ ci des gannaaw parce que day neex su vote amee ba ëllëg sa ñu ne ah waa gox yu bees ñii ñëpp ñoo leen votel ba Ahmed Diallo nekk na député bu ñu xoolee ñu xam ne waa Ngexoox bu mu dëkk ñoo si ëppale ñu si jàpp ndaxte kat balaa may doon député Bambey député Ngexoox laay doon parce loolu mooy dëgg parce que fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee fii laa yeewoo fii laay dugg si stade yi fii laay dugg si marché bi fii laay dugg si jeunesse bi comme fii laa gën a xam yan mooy jafe-jafe yu ñu war a kaas donc loolu noonu ah la ñu bëggoon ñu waxtaanee ko ñëpp vraiment tàllal leen loxo wax leen mbir mi mbiru Ngeexoox la wax leen lii nekkul leneen lu dul yëfu Ngeexoox dëkk nag day am ay occasion yi nga xamante ne occasion de cohésion la occasion de joxante loxo occasion pour ñu xam ñun ñëpp benn lañ mais occasion, si am bonne occasion ba ñëpp fàtte lépp ba ñëpp joxante loxo dëkk day bëgg a doy waar te fi occasion, bi souvent nous une may occasion si ASC ñun ñëpp ñu joxante loxo solo politique dafa am buñ ci ambition du pour nous. suñu ambition c'est de Ngeexoox un niveau politique nous yeneen dëkk yi am dañ koy am une su DG ngee xoox su amee ay nit yu am cëru politique balaa ñu koy am day yàgg lool te pourtant ay communes yu nekk ci département bi ñu ngi am ay ministre di am ay DG di am ay PCA di am lu ne te ngee xoox mënu ko am politique ngee xoox war na weesu foofu ba tey du Ahmed Diallo kese waaye lu toll fukki doomi ngee xoox war nañ mën a am cër ci état di dimbali jeunesse bi mais loolu moo tax ñu bëgg am taxawaay bu ñu am jël politique bi yóbbu ko benn niveau boo xamante ne day am fulla day am fayda ba kenn du yëpp ngee taxawaay bii ñu am ak lu munti am lay doon si coalition su ba am doole gu am ñaar rek soit nit ñi ne ah ñii kat dañ leen di ak ñu dimbali seen dëkk soit ñu ne ñii kat dañ leen di parce que dañ leen jàppee wujj waaye xeex boobu suñu doomu la donc même lu ñu xeex sax njëriñ lay parce que suñu jëlee ay doomu Ngeexoox jox leen ay post jox leen alal jox leen ay moyens pour ñu xeex Ahmed Diallo loolu njëriñ la si ngeexoo mais Ahmed Diallo su nekkoon yaafus taxaw amul parti amul coalition daful dara kenn du ko jéem a xeex bay dooleel keneen kenn du jéem a jóg ba xool lu muy indi Ngeexoox kenn du bàyyi xel Ngeexoox donc suñu taxawaayu lépp pour Ngeexoox nekk si xolu politique Sénégal la loolu nag suñ koy def lu ñu xalaat la stratégie la ñu ngi koy dérouler am si fulla am si fayda xaaruñu kenn mu yóbbaale ñu si làqatuwuñ si benn gannaaw liste taxawuñu euh, dugguñu fenn pour am loolu dañu xam ne suñu gëmee suñu bopp gëm waa Ngexoox ànd ak ñoom si liggéey boobu incha allahu rabbi dara tëwuñu te dara jommuñu ndaxte dëkk bii kat mooy dëkk ay jàmbaar mooy dëkk bi nga xamante ne buur yi fii lañ doon ñëw di jël seen cumbukaay di sampaat seen bopp donc Ngexoox ah te damay dégg benn baat ñu koy wax maam Abdoul Aziz wax na luy baax Sénégal ngeexoox lay bàyyeekoo gëm nañ ko ñun tamit te fii ngeexoox gëm nañu lépp luñ fi liggéey ba mu sotti incha allah dina law ci Sénégal loolu mooy sunu mbébét loolu mooy sunu bëgg-bëgg loolu mooy sunu taxawaay ci ngeexoox te incha allah nañ ci ànd ak doomu ngeexoox yépp mbokki campement ngeexoox ñu ngi leen di jaajëfal. di leen sant di leen gërëm seen taxawaay rafetlu nañ ko seen jàppale gis nañ ko ñaan gis nañ ko seen élan de solidarité gis nañ ko fépp fu ñu dugg ñëpp ñu ngi ñuy wax yow la ñuy votel ndax lii mbiru Ngeexoox la fan yii yëpp duñu nalaw chaque jour 8 heures ba 3 heures du matin ñu ngi porte à porte comme nuñ leen ko waxee dëkk bi moo yaatu waaye suñu sañoon yéen ñëpp porte à porte la ñuy ñëw ba seen salon wax ak yéen tàllal leen loxo ngeen ñaanal ñu waaye yàlla def na campagne bi nationale la liste nationale lañu jiite donc tey Bambey lañ jëm suba suñu xëyee dem Touba continuer suñu programme loolu nag ah dañ ci euh, jël mission bi jox ko jeunesse bi jox ko waa Ngexoox di leen ne ci biir campagne bi même su nga ñu gisul xam leen ni seen doom dafa dem wuti feneen dafa wuti doole faneen waaye lépp lu mu wut si biir Ngeexoox moo si njëkk a bénéficié wu. te loolu ah ñu ngi ci dem waaye équipe yu nekk fii nañ dugg si dëkk bi campagne ak yéen waxtaan ak yéen et yeneen i bés nañ ñëwaat ci dëkk bi aussi ànd ak yéen campagne. asalaamu aleykum wa ñu ngi leen di sant di leen gërëm di jox journalistes yi question lépp lu ñu bëgg laaj ñu laaj ko bépp question bu ñu am ñu indi ko bu ko defee ñu indi leeral si lépp jaa ngeen jëf. votre chaîne Ngeko TV. Ngeko TV, c'est une chaîne télémédia bilen Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngeko TV, Indil Nalen Lubes. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngeko TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngeko TV.